ci teewaay bi ci turu coalition Benno Bokk Yakar, yëpp ci département de Diourbel te kilifa yi toog ci table bi seqoon ko ak ñun ci sama en tant que coordinateur du comité électoral départemental de la coalition Benno Bokk Yakar, amoon yéene daje ak yéen yéen waa presse bi pour wax leen gannaaw bi nga xamee ni résultat yi euh, euh, commission départementale de recensement des votes pare Légui léegi liggéeyam ba yónnee ñu PV bi suñu représentant Ousmane Diédiou nous ñu ne kon dina jaadu presse pour waxtaan ak résultats yi nga xamni candidat particulièrement ma bëgg a rek que fi ci département le fukki commune la ak ñaar te fukki commune ak ñaar président Macky Sall gagné moko gagné jël point ci téeméer boo jël lu teg lu teg aslëf kooku nag Idriss Seck moo ci topp téeméer boo jël mu am fanweeri poñ ak lu teg topp ci Ousmane Sonko téeméer boo jël am na juróom-ñetti poñ ak lu teg topp ci Madické Niang téeméer boo jël am na ñaari poñ ak lu teg tuuti euh, Issa Sall moo mujjee am benn téeméer boo jël mu am benn poñ ak yu teg tuuti fii ci département Ndiarème ñi fa nga xam ni bokk nañ ci élection yi téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom ak lu tek tuuti bokku nañ ci élection yi donc doon na jaadu ñu wax leen que ci département Diourbel président Macky Sall candidat Macky Sall mo fi gagné élection yi ben commune dessul ci commune yëpp amna ay commune yo xamni sax témèr bo jël rawee na fa juróom-ñaar fuk ak juróom ak lu tek donc lolu tamit baaxoon na pour ñu yëgal leen ko donc ñi ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax né eh, ñi ngi féliciter tous les responsables et tous les camarades ñi nga xamni nous investirons para que le résultat soit